rabbil aalamiin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi monsieur le ministre de l'intérieur suñu frère ak mbooleem kàngam yi nga xam ni ñi ngi ci wetam dale ko ci gouverne suñu gouverneur bopp ak suñu préfet ak mbooleem chef de service yi nuyu ki nga xam ni donte le ministre nee na membrement de l'État la waaye nag ci suñu biir la bokk muy suñu le nouveau maire alxaaji Demba Diop si di ko ndokkeel di nuyu suñu doom suñu jigéen di soxna Zeynabou Gaye di président conseil départemental di nuyu itam mbooleem journaliste yi di nuyu comité d'organisation bi di président COSCAS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 ñi nga xam ni ñoom lañu àndal ci bés bi nga xam ni tey jii ñoom ñoo fi teewal xalifa bi ñun ñu gunge leen tëkk ca jiitu mooy ni ko sëriñ Moustapha waxee di sëriñ Mansour Sy Djamil mi nga xam ni mooy sunu mag di sunu kilifa rafetalal ñu jataay bi gunge ñu ci yoon bi mi ngi ànd ak ki nga xam ni moom la baayam maamam di sëriñ Babacar Mansour di sëriñ Mouhamadul Moustapha Al Amin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 dañ ko yokk ci ndigalu président de la république kon bi ñu gisee ñu def CRD def tey bés bi loolu yëpp ci sa taxawaay ak sa engagement ci ndigalu président kon dinañ la wax jërëjëf jëf dina yóbbante ngërëm ci la président de la république ci taxawaay boo xam ni depuis départ ba léegi mi ngi koy am ci biir Tivaouane kon ñi ngi lay sant di sant sunu gouverneur comme ni ko sëriñ Moustapha waxee duñ ci dellusi